El Hadj Ousseynou dal leen jàmm ci xibaar yéen kaay yi nga xam ne nag moom la xëyandoo démb lañu doon tànn ki xam ne nag moo war jiite réewum Sénégal waaw élection présidentielle yi maanaam démb daal la ko doon amal yéen kaay bi di Sud Quotidien di ñu xamal ne nag mbir ya kay jamono ji moo raw mbàccum gerte waaw Mohamed Boun Abdallah Dionne neem premier ministre daal génn daal xam ne ne jamono ji Macky Sall jël na élection yi nga fekkee ne loolu am na 24 heures di ñu xamal ne waaw Mouhamed Boun Abdallah Dionne mi moom ku mu yëpp waaw jongante yoo xam ne daanaka daal pareegul moom naan sax dafay jox ay résultats yéenikaay bi di ñu xamal ne xanaa ji nag Macky Sall fi nga xam ne nag moom la wax waaw maanaam élection yi dañoo wax ne daa war a am deuxième tour yéenikaay bi di ñu xamal ne ci nga xam ne nag moo di Idrissa Seck ak Ousmane Sonko démb kay acharnement yi da am ñoo xam ne jamono ji dafa am fu ñu fare ba tax na Idrissa Seck ak Ousmane Sonko daal yëkkati ay kaddu yu ñagas daal waaw maanaam daal bëgg ñu songu daal di koy jëmmal ne daal Ousmane Sonko moom moo ko téye Le Quotidien di ñu xam ne jamono ji kay li nga xam ne nag ñu bëri moom la waxtaane muy jangonte yi nga xam ne waaw waaw ndax deuxième tour dina am direct info du ñu xamal ne est-ce que sax deuxième tour du am waaw jangonte yi laax est am maanaam mbàccum gerte waaw Macky Sall moo fa teg loxo Union africaine jongonte yi nga xam ne daal moom la doon amal ci réewum Sénégal deuxième tour munta ñàkk ah tribune yéenekaay ñoo wax waxee nu nu mel en tout cas daal deuxième tour ak premier tour nañu xaar ñi nga xam ne ñun na ñoo ca war a wax ñu génn résultat yi ku sa gémmiñ di nàcc nag doo wax jàmm